Dakar gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ah lii ñu a may. gën ñoo gàtt ñoo jërëjëf ñëw bu yàgg ba tey toogal toogal toogal dafa am lu may seere ci yow kaay da sama xarit toogal àdduna lépp teranga la moom mii Mor Ba la tudd. di directeur général di rakku Thierno Ndom Ba mu ngeen dégg mu yor mouvement pikin ci laa bokk muy sama xarit lu mu xewle ci àdduna man lay woo ne ma yaa ma ci doy muy nit ku yàlla baaxal PDG sa teraanga léegi bi mu wàccee ci kër gi ñépp dañoo xam ne ñëw nga ci man oto nga gaare def ci ndox boisson fruit ak ay teraanga bu la neexoon mën ngaa bañ a ñëw te yow bi nga may woo fu sori nga jóge ne ma damay ñëw ba teg la bët doo ko dem PDG Mor maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm euh, Aji Omar Gueye li tax may wax loolu mooy alaaji Serigne Cheikh Oumy Mbacke Fallilou moom mii bokk na ci ñoo xam ne dañuy tegle ay mbasin di ko ñaw di ko jox sëñ Cheikh muy jàmbaar lool bëgg sëñ Cheikh Oumy mu sëñ Fallou jàpp ko di ko liggéeyal di boroom teraanga kon soo ñëwee duma xumtooy wax man bis bii duma ci xumtoo dara maa ngi lay sant waaye maa ngi lay gërëm di ko seereel sama doomu sëriñ bii toog muy Cheikh Mouhamadou Fadal kii nag li dal baayam rekk moo ko dal kii amul jot. dëgg du ñëw ndakaar lu bari. daara yi Touba na kii mooy doyor daara ji mooy jàngal xale yi. mooy jiite ci jumaa ji juróomi waxtu yi ak ajjuma jàng ak jàngale rekk la nekk ak bay ak julli. kon lii mu def man xam naa ne jotam may daara ji daa fees dell jàng rekk la ak jàngale la fay def. kon su bàyyee yitteem yépp ñëw ànd ak rakkam ju tedd ji Cheikh Abdul Karim mu baax mii maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm sëriñ Fallou saar gis naa la di sëtu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke jasaaka jëf nii nga ma ko waxee woon te defee nga ko noonu ki nga dendal sëriñ Amet Ñang la tudd di doomi sëriñ Basiru Mbacke mu sëñ Fallou baayam ak sëñ Basiru ñoo bokk benn way juru jigéen kon jërëjëf ñang soxna sii toog lool jërëjëf Mbacke Cheikh mën ngaa doxal bu ko defee ñu yeggale te kaw te kanam yàlla na yàlla yokk say xéewal nit ku baax nga alaaji Seydou seede ki yow xam nañ ko yàlla na yàlla yokk say xéewal ak góor nga bisu sëñ Fall bii ni mu ci feeñee yàlla na sëñ Fall feeñee say mbir te kaw te kanam wa radiyallahu an seyxina ahmadul xadim wa ala xudwatina al azim maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine barkeb Cheikh Abdoul Karim Mbacké Faddilu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Sayyiduna Muhammad feddali suñ kolteef Cheikhul Khadim di leen bal wàq di leen baal tey ñaan yàlla boole nu jéggal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi waaye yàggal fi sëriñ Abul Baraka sunu sëriñu sëriñ ak mboolem njabootu Cheikh Amadou Bamba gi di ñaanal Cheikh Mouhamadul Basir mii nu nuyu léegi fii yàlla na fi yàgg yàlla na ko yàlla defal wér ci barki Cheikh Amadou Bamba sëñ Fallu Mbàkkee ko jur sëñ Basiru Mbàkkee ko yar suñ Tubaa daawul laaj ku la jur ku la yar lay wax waaye sëñ Fallu jur la doy na cër sëkk sëkk sëkk sëñ Basiru Mbàkke yar na doy na cër sëkk sëkk boo santoon neneen te sëñ Basiru yar la sax mu doyub cër waaye sëñ faloo ko jur tudde ko sëñ Basiru mu yar ko borom Touba Mérina yàlla na fi yàgg maa ngi nuyu njabootam gu baax gii nii ko Seydou waxe noon nii rek la demee Cheikh Mamadou Fadal ñoo ngi feddali taalu gi bu baax bu fekkoon yoon wi ay wudd la damay wax ni ci géttug fal lu Mbakke laa ju man man fu ma mën a ne ma moom Saliou nag universel la ci yoonu murit ka mujj ca yoon wa bañu maa toog waxtaane ko bañu maa waxi dara jaam nangu naa di jaamam ndax sëñ Tuubaa wax maamam jërëjëf waaye sama bàyyi moom sëñ lu Mbàkke sëriñam moo tax ma wax ni bu fekkoon ay wudd la yoonu murit bu doon ay wudd ci géttug sëñ lu laa juddoo man Seydou mii xam na ci dara ndax xam na sama baay moom doom yi mu am fekk sëñ Fallu nekk fi waxu ci kenn nii lay tudd sëñ Fallooy génn leewu ko tuddeel ko boppam ñun ñii la tuddee ni ko neex waaye bi fi fal Falluy nekk moom mësta tudde doom tudd doomam sëñ Fallooy génn rek tuddee ni ko neex taawam sax daf ni ma damaa yónnee rek wax ni bu sëñ bi génnee na ko tuddee ni ko neex bu leen laajee nag ngeen ni ko soxna ummi mbampanam borom Tuubaa damaa amoon ak moom wóllëre ñëwut moom far nee na sëñ fallu génn sama bàyyi Ablaye Samb kenn rek la bokkal ndey ak bàyyi ñëw jege sëñ lu yaakaar ni sëñ fallu dina laaj sëñ fallu sëgg ci nopp liir bi siggi ni waaw tudd naa ko soxna ummi mbampanam sama bàyyi ma ko nettali laajtewul sama bàyyi nag onze la gën jamono kii xam na ko bi may gën jamono ni sa kaala gii la bopp bi mel sëñ Fallou ko wax Moustapha ñetti yoon nee na booba sëñ Fallou xam na ne bu demee du ma gëm kenn góor ci ginnaawam mu ne Moustapha ñetti yoon mu joxar ma sëñ Modou ñoom Moustapha Mbacké mi xeesaay képp laa ko ëppale nee na xam na ni bu demee dootuma gëm kenn nee na li yéema booleeg sëñ Modou sëñ Bousso moo ngi lay jaar bu baax a baax sa tawaay fii ci géejawaay nun murit yëpp a koy béggee ndax sunub sag nga te yaay mbokkum sëñ Touba di mbokkum sëñ Fallou sëñ Abdou Karim sama sëriñ yow nag moom dafa gën a neexati ndax dangaa bokk ak sama sëriñ aw tur sëñ Fallou Sarr jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di ziara xam naa dañuy barkeelu kàddu yu gàtt sëñ Malick Seck sëñ Madoun Sow suñ kilifa yi jànkati xasida yëpp ñoo ngi leen di ziara Seydou day nit ku baax di nit ku mën a wax lu baax mën a jàpp nit mën a dox diggante nit ak nit lii Talla Niang doon seere ci moom léegi bi mu koy def ci Talla Niang maag Talla Niang la ko defandool ndax ca quartier général ba la ñu daje Mohamed Samb wax ni yéen ñi fi daje yëpp maa ngi jox Seydou mu jox leen ba mu xëyee la ñu ko yónnee ñun ñëpp. te koo xam ni du yàgg ba nga woote ni jox nañ ma mbaa joxuñ ma ki lay jox bu ko neexee rek mu jox la la kiñ ko jaaraleet bu ko neexee rek mu jox la la ndax du yàgg ñun ba ñu woote ni la nga waxoon waaw sunu deret ji maynu loolu. du yàgg bañ dajeeg nit di ko xool bëtu waxoon nga ñu nangam te joxoon ñu ko suñu deret mayuñu ko damay wax nag gaa yi di leen ku ngeen fi gis deretama ko tooñ lu tax diw mën nangam deretama ko tooñ lu tax diw mënut nangam deretama ko tooñ Cheikh Ibra Fall mooy abu rijaalullaahi daa am ku ko ne da ngaa baax jox nga Cheikh Ahmadou Bamba sa lépp mu ni ko déet jum nga sama ngor dama ko téye woon bu ma ko téyewuloon duma ma fa xaar ngërëm moo ko téye woon duma bu ma ko téyewuloon duma wax xaar ngërëm kon ngor ci affaire bi la sëñ Tuubaa nee na Ceerno maa ko defal lépp ba mu des ngor geeg fit bi sëñ Fallu Mbàkke rek laay wax ay baat joxe rajo bi damaa jëm fu sori te joxewaat naa rendez bu deux heures Dakar fu ma war a waxtaane te fi may jëm daa génn Dakar moo tax damay wax ay baat rek ci sëñ Fallu Mbàkke waaw ku nekk ak li la yàlla jagle ku nekk ak li la yàlla jagleel yàlla miy jagle moo jagleel sëñ Fallu sëñ Tuubaa jur ko ba noppi mu jébbalu ci moom siiwal ko doxal ko ba képp ku xam sëñ Fallu Mbàkke xam ni kii borom Tuubaa la bëgg yàlla faye ko ni mu defoon borom Tuubaa nit ñi mel ko ci moom lii rek la turandoo sëriñ bii toog bu ngeen ñu baalee dañu jël waxtaan wi du yàgg àllub neen bu ci ay wax duggee mu gën a metti Cheikh Mamadou Fadal moom soxna Awa Bousso sëñ Tuba ko jur moo ko yar moo ko dalal alquran mook Cheikh Moustapha Bassine ba Yaasin bi sëñ Tuba ñëwee sëñ Fallou siwalum njébbalam ci mbind ñépp a jébbalu waaye goog sëñ Fallou siiw ci mbind waaye nag mu jëfe ko fi ma bàyyi ko léegi sëñ Mahmoudan mu sëñ Mourtala mbakke ma ca Louga moo fa nekkoon dama ko ni gëm sëñ Fallu Mbacke mook soxna maam awam sëñ Fallu fa woon ma ne ko gëm gëm sëñ lu Mbacke sëñ Touba sëñ Mourtala feeñ na ci sëñ Fallou gëm sëñ Touba sëñ Modou Bousso Dieng daa indi oto ni ko ñaanal ma ci sëñ Fallou ñaan ba noppi ni sëñ Modou sa waa ji daa amul woto ma bëgg nga jox ma ko ma jox ko ko sëñ Modou nee na xaw ma kuy sama waa ji sëñ Fallu moo fonk njabootu sëñ Touba gi moo gëm sëñ Touba ci njabootu sëñ gi ngay xam ne sëñ Fallu fonk njabootu sëñ moo gëm sëñ Touba sëñ Modou nee na ma ne ko xanaa nga may ma mu yóbbu ma xaayira rek ànd ak sëñ Cheikh Assou Faye ci oto bi ñu dem xaayira oto bi ñëwal sëñ Fallu nee na amuñ ci lu dul di naan kafek ngoon ci xaayira ci penc mi rek. oto bi traversé leen sëñ Mourtala am sëñ Touba ne ca kanam mu xam ni ndekete yoo sëñ Mourtalaay waayam ji moom sëñ Maodo nee na xaw ma woon kuy sama waay. sëñ ñëw ci moom ñu ne ko sëñ bi daa tëj muy daw bañ sëñ bi yëg ko sëñ bi yëg ko laaj ana kooku mu ni ko Seex Saliou la sa ju baax ji mu ne am na tax tijji woo leen ma ñu ko ah Mbàkke moom sax da doon bañ bi ñu ko waxee da ngaa tëj da doon bañ nga yëg ko di tijji. waaw doomi sëñ bamba bu fi ñëwee ubbi leen ma Saliou mi li ma jox ci jumaay sëñ bamba ji buñ ko ko delloo woon kàmb gu rëy feeñ fi bu ma kenn tëj si ci doomi sëñ bamba bàyyi mot yaay bint moo nett li ni nit ñi dañ koo bëgg a mu tëj ba tàkku saani suuf moom si Cheikh Mamadou Fadal tëjiwul nee na ma ñëw ci ñi ko bëgg a siyaare ni leen bu ngeen ma neexalee ma génne sëñ Fallou Mbacké nee na nag ni ma sëñ bi tëj ba waxtu wi nga ne di nga ko génne waaye nee na ñi bëgg a siyaare dajale seen tur jox ma nee na ma dem ba ca néegu barak ba mu daa tëju taxaw wan gannaaw néeg bi yuuxu mbooloo mi ni mbooloo mi ku yaakaar Cheikh baam ba fekk ma fii ma taxaw nee na sëñ Fallou fël bunt bi ni ko waaw maa fi njëkk ñëpp maa ko gën a yaakaar ñëpp baax dama la doon wax moo bëgg sëñ Touba léegi moo baax laa lay wax benn seere rek laa lay wax ci moo baax xam nga lu tax sëñ Fallou baax bi ñu yoonal sëñ mag bi moo jënd Touba mosquée te amu fa mu penc tey xaw dégg ngeen wolof yi ma waxam déet dégg ngeen ma sëñ Fallou baax laa wax ma ne bi ñuy yoonal sëñ mag bi sëñ Fallou jënd tuubaa mosquée moo ko jënd te doo fa gisum pencam kenn du moom ba lay sëbri yàlla defal ko lool nag moom rek nee na ku dul ki ma joxe woon doo kin ma joxoon xam naa ci alxuraan loo ci xamul dégg naa ci loo ci déggul sëñ Tuubaa joxoon maam borom Sàmm la ko joxoon. ku dul kin ma joxoon ki ma joxe woon xam naa ci alxuraan loo ci xamul dégg naa ci loo ci déggul moo gën a jubóog gaa yi. loolu de sëñ Fall danoo yuuxoo ni dem na nit ñi tàmbalee dee mu laaj rajo jumaa ji ne maa ngi nii ci seen wet seen maamu jubóog yàlla nag. seen maama jubóog yàlla nag barke xaadim rasool maa ngi ziyaare njabootuk suñ tubaagu jigéen gi soxna muminatu doomi asadul xaddiim sëñ am satu jaalibatu maraaxi bi soxna bintu maa ngi lay nuyu ak soxna mareemum kunta moom sëñ basum sëñ fal soxna bintum sëñ basirum sëñ fallu maa ngi leen di nuyu di leen bëgge bu baax nun seen maam rek la am te xam nañ ni doomam ju jigéen ju mën a doon ku dul doomam jugóor góor moo la gën daa waxoon yàlla ni ko wali ya baarik fil banina wal banaat Sëñ Tuubaa bi muy ñaanal doom yi bàyyiwul jigéen ñi di jëwriñu Masaalikul Jinaan mu ñëw ànd délégation bu mag noonu laay ziyaare Sëriñ Mansour mii toog di sunu xarit di sama wëllëre lii mu def lu rëy la ñaari tàkkusaan bu ne ci moom lañuy daje toog fa di fa naane kafe di fa waxtaan may ziyaar bu baax jëmm jee toog di sëriñ Adama Diop di nit ku yàlla baaxal di nit ku yiw di nit ku bëgg lu baax te mën a jëf lu baax barki Cheikhul Khadim sëñ Adama maa ngi lay jox sa wàccuwaay yow nit ku baax nga waaye ma leen di seereel ne kee ñëw dama ne bis bi moom laa ci sargal muy Serigne Cheikh Fall mais toog di communicateur bu mag ci réew mi Cheikh Fall réew mi ñu dekk muy senegal da ci am empreinte ko <laughs> nangoo naa liggéey am na jom waaye am na fulla am na fayda te am na personnalité ñun xale yi fu ñu dajeek moom lu ma leen di wax nag ñun xale yi nañ ci bàyyi xel ndax ñoo yor l'avenir de demain mooy avenir ëllëg ñoo ko yor suñu dajee ñun communicateurs yi moom suñu magu communicateur la waaye def nuy dimbali nun ku nuy dimbali nu wax ko ku nuy dimbali ñu xam ne yaa ngi nuy dimbali danañ la jàpp te duñ la booleeg dara duñ la yemleeg dara waaye moom bokk na ci suñu mag communicateur yoo xam ne dafa ñuy dimbali am na fu muy mën a dugg ñun mënuñu faa dugg dana dugg ba génn fa téeméeri junni wala million ne la diw moo la ko may loolu jikkoom la te muy nit ku baax ma ne kii dañ ko war a sargal ñun xale yi ndax référence la mag ñu baree bari lijjantiwul ñu taxawuñu man dama ne mag ñu baree bari lijjantiwuñ ñu taxawuñ ñu cheikh da noo lijjanti da nga noo taxawu moo tax man ma ne naa la sargal te ci kanam tuuti maa ngi ñëw ci yow man duma ragal sëñ Touré di ku baax Moustapha Touré mii ñëw na moom sëñ Abdou Karim ture di sama xarit nañ leen may ñu toog soxna Khadija Mbakke soxna Khadija Njaay Mbakke mooy dugg si moom Alaaji Baara Mbakke moom Sëriñ Fallilu mooy dugg si jërëjëf toog leen nañ leen indil ay seize ana jàggaamu nañ leen wutal ay seize soxna si bu toogee moog Yaaram Mbakke ñu wutal leen ay seize saaliwu it defoon ko ci boppam boole ko ci ak njabootu boppam mu représenté nag lu bari ci réew mi doon na ministre de la femme ay yoon doon na ministre de la fonction publique doon na maire de Kaolack doon ministre formation professionnelle tey nag bisu daara la te bis bi nag dafa aju ci moom mu doxal ko waaye yónni na délégation bu mag biñ daataa ñëw ci délégation bi nag Fatou mbay dafay sant bu baax Seydou Mariama nee na Seydou nit ku am kóllëre la Seydou nit ku am jom la Seydou nit ku bari valeur la waaye nag Seydou taalibe la doon murid ca ñoom ñaar Serigne Touba ak Cheikh Saliou la ñu ànde Mariama bi muy nekk ministre mook Seydou booba ak tey bisu Seydou mooy lu ko benn yoon waaye Mariama nag nee na dangay as gor ci mën a jàpp waaye danga xam ne yow it jàpp nga gor ndax luy màttus gor bu seeni Mariama nga te nag ndey ju gore ak baay bu gore góor ngay tudd waaye góori jukko la Seydou sa ngor ci boppam moo làkk taalibe Cheikh na baali a dala gërëm nga nekk ci wetam nekkin wu rafet à travers Sénégal et monde entier ñëpp xam ko délégation bi nag kii nga xam ne moo ko jiite mooy chef de Aïssata àndoon ak moom kii taxaw mooy ajaratu Fatou Mbaye di nit koo xam ni nag ku ko gis muy dem ku ne boo nammee Mariama Sarr boo xoolee Fatou Mbaye gis nga Mariama di kenn ci moom di géwéram sës rëkk ci moom te kat dinaa la xamal ñaar géwél du ñëpp ku mën a am géwél ku koy manqueel ku ne ku fi mas a nit tedd ànd nga ak sa géwél mu gunge la man mii nag Cheikh Paar Ramata di kenn nit ci moom di géwél ci moom kon nag Seydou madame le ministre moo yónnee ak cant yónnee gërëm ci yow fam nag ñi nga xam ni ñoo gën a xoor ci moom yónni leen ministère nag boo fabee chef de cabinet fab chargé de mission ya tubaarkaal la yónni leen sa jëmmi bopp ñoo teew kon Cheikh Mbacke ministre Mariama mi ngi sant seydu bu baax di ko gërëm waaye yow lii nga waxoon nag ci diggante Serigne Saliou ak Mariama moo am Mariama ba ma doon étudiante nekk ca collège dal bu ma saana kuy bursam du ci xënte lu ne lu dul xotti ci mbasin riis yi ak desneer yi di ko jox Serigne Saliou mu boole ko it ak doomi Serigne Fallou soxna maam Bousso ni ko na koy firi kaara yi kon nag Mariama tubaarkàlla yàgg na ci kër Serigne Touba yàgg na ci njabootu Serigne Touba Seydou nag maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm yow da ngaa baax ca gore te jox ma sama cër fonk ma te nag dinaa la xamal ñaar rakk ju mën a taral magam la te noonu ngay jëflanteeg ko wootee lu xaar suba lépp ngay joxe kon noo ngi lay sant di gërëm Fatou Alaaji boo waaye fekkee dafa muccul man ku ma gis xam ne ci Mariama Sarr rek laa ne dew ma fenn Mariama nag dama deselul dara yonent bi koo fa yóbbu deselatoo ko dara trangaat màkk la yam waaye Seydou mii nag day kenn ci man mu bëgg ñu lool nag ñu ay xale yàlla def ñuy ànd ak moom mu xam ne suñu càmmiñ la ñuy ay xale lu ñu am nag yóbbu ko suñu njaboot nag Seydou du ñu jàppale loolu téye ñu loolu nag kon madame la ministre dafa yokk ci xar mi karaw ndax Seydou mi sama càmmiña sama xol sedd ci guy ci bis bi kon soo ma war a jiite délégation bi moo tax suba tey yenn suuma fi waaye yow ndax da nga ñoo bëgg jàpp ñu bés bi nag dana jiim rek nga Sëriñ Tuubaa nag ku mu teg loxo doo dellu ginnaaw kanam rek nga jëm luy jaay waxaaleel am nga njëgam yow am la ministre Mariama Salis kiy wax mënatuma ca teg leen nee na lii moo la ko jox ak xeeb ne sa ginaaw ba bis bi sedd ndax yow jàppewoo ko état keroog ba mu demee état wane i gata ginnaaw nga ko gën a téye ànd ak seequ mi mu sëñ fàll kon yow kenn mënu laa fay bis bi danay tiim. Eh, jërëjëf nijaay Cheikh waaye Fatou mbay jërëjëf kon ñu déglu alaaji teraanga ji nga ko jox du ko jël kon ñu may ñoom mu sëñ Modou Gueye muy waa Masalik ñu yëkkati seen kàddu bu ñu noppee sëñ def ko benn tool waaw waaw ci laa jëm ci laa jëm ci laa adduna lépp teraanga la danga maa jox enveloppe Cheikh Fall Ramata te maa lay sargal man nag su may sargal nit nit kooku du ma jox maa lay jox man su ma lay sargal ba xool ne sa jikko neex na ma ak sa jom ak sa fulla ak sa fayda maa lay jox waaye doo ma jox leetar baa ngi ni maa ngi koy téye maa ngi ñëwaat ci yow xool li ma ciy teg ak yi ma la waajal ma jox la ko ak sa enveloppe cheikh dañ lay sargal tey bis bi communicateurs yi bari nañ waaye da ngay sunu mattali sëñ Seydou seere ci yow ñun ñëpp moom la xam ci yow ngay as góor di nit ku baax. aleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala di julli ci seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa ñi ngi sant bu baax suñu yaakaar yi tey ëllëg di cheikhul xadim xadimal mustawa di ñaan nag tey ñaanal ki ko tooge tey di cheikh muntaxa suñu borom dal di ko fay yàggal lool te wéral ko mag màggu sa yëpp daal jooju ba lépp luy bëgg mag yéenéem yàlla yëggale ko na mu ko bëggee Seydou kàddu yi lu gàtt lay doon ndax jot amul te ñi ko yittewoo bari ñu may imaam Sey fu mu toog nañ ko toog fu mu toog imaam si waaye kii yónnee ci yow day jàmbaar lislaam day jaratu gàmmu jóg. Ah, nañ dalal imaam nañ ko dalal. nañ ko dalal waaw. nañ ko yow. day jàmbaaru lislaam day jaratu gàmmu jóg. ba ñu sancee Masalikul Jinaan ajjuma dañ koy seeti mbàkk yu fay ànd ak man ak Modou Mbaye Samb. ñu gis barab ba sanc nañ ko ay weer masaadik ñetti nit la am mbàkk yu fay Modou Mbaye Samb ak man yàlla di ko barkeel ñun ñett ba mu toll nii tey ajaratu gàmbu joo mbàkk yu fay jëli ko ne ko yittewoo naa ko ma jàppale ci liggéey bi lu tax bàyyam alaaji njóogu jóob lu waa daaru xudus ma sa soxla te mu war a bàyyi ko ndakaaru moom rek koy sasoo daaw ko laaj ñaar baayam moo doon jàmbaari Cheikh Gaynde Fatma ba ñëpp xam ko accidenté na feebar dem hôpital ñu aj tànk ba ak i soin Serigne Cheikh bàyyi ko Touba ñëw di ko seet si dugg ci hôpital hôpital bépp jaxasoo ndax Cheikh Gaynde Fatma mu dugg ci hôpital ak personnalité bu rëy ba médecin yëpp daal songandoo ko mu ne am ana njóogu fu mu ne ñu won ko sàll ba mu dukkat wuti fen sàll ba keroog ba ñu jiitoo ne bàyyi njóogu sëñ Cheikh ak ñëw daa fi tax tànk ba dagg mboolem muñ defoon ceram bi boole ko jooy na rambuti sangam bu tedd ba loolooyu ak wéram kooku ku mu jur war ngaa dox ci taalibe te moo mel ni gàmmu mii gàmmu jiite Masalik jiite jigéen ñi mu àndal délégation bi tudd nga leen du ma leen tuddaat waaye jëf jure ju ne jëfeñ ko basaadik ba ñu naan basan gi dañ koo soxla pour lal ko fukki million ak ñeent la daggaam wut ànd ak ñi muy àndal teg ko ci tali bi buñ ne nangam gàmmu fab du joxe loolu ay million buñ ne gàmmu mbàkk yi daan joxe ne nañ koy def ay beñe di ko def mu ne déedéet ñun jigéen ñee ko sasoo buñ daan def juróom benn fukki booli mu ne naa def téeméeri booli di ko indi nag di jàmbaaru Masalik jooju jiite jigéen ñi moo yónnee teraangaam ji te xepp nee na moom te di sëb kenn kul ji naan man koo féete fu ne lu ñu xam di ko yónnee teraanga lu ñu xam te man koo sere loolee Cheikh Fall mee wax bi lay wax dëgg da nga dis gorte ba di jom Seydou ku baax waaye sab sang ne la jërëjëf nit amul lu toll noonu ci àdduna kon ndokk bi nga xamante bi sëñ fi toog jërëjëf nga yëkkati million aku nag ne maa sama addi yaa ngi nii yàlla nay dem bay million mbaa kuy fay joxoon sëñ mën yàlla na ko jox sëriñ Basiru yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla defal bi jaay Seydina Muhammad barke Cheikhul Khadim teraanga jàng nii waaye teraa waaye soxna gàmmu nee na añ ba nga indi ba saalik ak teraanga ya ko topp muy tay baat ya imaam yeeg ku dee ba sàllit tey ca ngaay jërëjëf baay Babacar baay Babacar Mbaye jërëjëf waaye sëñ Modou Gueye jërëjëf kontaan nañ ci taxawaay bi soxna gàmm jërëjëf dégg nañu kàddu yi ak jëf ji yow da ngay bàyyi faal maam jaara ànd ak ñi bëgg maam jaara ñëpp nag di liggéeyal Serigne Touba kon ca kaw ca kanam xol yëpp sedd na léegi nag kàddu soxna Daba Sarr jawri ni Serigne Cheikh mi mbekkim Serigne Fallou bada bismillah sëriñ Cheikh Mbacke Dia alaaji Seydou yaakaar naa ne bu soxna gàmmu joxe li nga xamante ne mooy tarangaam soxna Daba Sarr mii di jëwrinu alaaji sëriñ Cheikhu mi Mbacke moom sëriñ Falilou mboolem fédération muxsinina wal muxsinaat wala fédération dairatu salaam moom mii la sëriñ bi jiital muy jigéen joo xamante ne jigéen ju mën góor la soxna Daba Sarr ji jigéen joo xamante ne dallu góor la sol ci liggéeyal sëriñ Touba waaye jaar ko ci kan Cheikh Mouhamadou Fadal nga jox ko cër bu rëy ci bis bii mu fonk lool cër bi te lool cër bi ndax kat xam nga sa diggante ak moom Alaaji Seydou alaaji Seydou man naa wax ne kër soxna Daba Sarr mii yow ak sëriñ Modou Ba ak Serigne As Diouf ak mat mi ñun ci kër googu lañ yaroo waaye nag la ngeen fa doon xeeñtu mooy liggéeyal Serigne Touba waaye la fa doon xeeñtu mooy ak taalibe soxna Daba Sarr ubbi kër gi def ko daaray Sëñ Fallu su añ jotee mu togg ay booli bari yóbbu kër alaaji sëriñ seexu mi jox dongo yi su reer jotee mu togg reer bu doy jox alaaji sëriñ seexu mi jox dongo yi nekk ndeyi daara doon jàmbaar lool ci biir kër alaaji sëriñ seexu mi mënoon naa wax ne jigéen la waaye bi mu doonee jigéen ba pare daa sol dallu góor ci liggéeyal sëriñ Touba ak sëriñ Fallilou ngay woote bisub sëriñ Fallou bii jël cër bu rëy jox ko ko ci muy lu ko neex ndax nee na ma kat Seydou sama bëgg la ma delloo muy sëriñ Fallu moom nag soo ko dàqee mu daw kër Cheikh Ibrahima Sarr rek la jëm borom jasaaka yaa xelu Ibrahima mawlaaka xayral jasa wal mu naa daaray kaawlaaka kaamoon ngërëmal sëriñ Touba moo tax soxna Daba Sarr guddeem ak i bëccëgam subaama ngoonam lépp jooyal na ko ci liggéeyal sëriñ Fallou mu wax ne xolam sedd na bu baax Seydou xelam dal na bu baax ci cër bi nga ko jox soxna Daba nag bi muy ñëw mbooleem fédération Daayiratu Salaam ñi ci ëpp topp nañ ko ak njabootam a ngi toog lim nañ délégation bi léegi muy ku fonk bis bi jox cër bis bi lool ngir lan xam na fi nga toll ci moom xam na tamit li ko jox ni mu waaye muy wax ne mi ngi ñaan ci dara jëy sëriñ fajlu sunu borom guddal saw fan te wéral la àggale sa yéene lool ba li nga bëgg lépp yéene ko sunu borom defal la ci lu kawe sa njor ci barkeb sëñ Touba. addiye ji nag mi ngi nii nee na su sañoon bis bi li ciy dem yépp moom moo koy def ndax kat li nga ko jox da koo neex li nga ko jox day ak bëggam ba tax na bu sañoon liy dem ci bis bi yépp moom Adja Daba Sarr mii moom moo koy def waaye nag wolof day wax ne yoon bu jeexul waaxu sul du jeex moo tax lii nee na nga defal ko ci bisu sëñ Fall bi muy addiyam wasalaamaaleykum wa rahmatullah eh, bada jërëjëf baax sama doomu sëriñ bi teew léegi muy sëriñ Cheikhouna Mbacke mu sëriñ Basiiru mu sëriñ Falilu Mbacke jërëjëf sa baay bu baax bi Cheikh Mamadou Bachir sama yaakaar te ëllëg rek ba mu ñëwee doy na sëkk waaye yéen dangeen a baax rek mu ànd ak rakkam ju baax ji Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi mu duppee Serigne Baara mu sëñ Fallu Mbàkke jëf noonu la ñuy ziyaare tamit bu baax imaam si gox bi nga xam ne falaa juddoo mooy imaam ba muy géejawaay sama baay wóolu woon ko lool sama baay doyloo ko ba tey jii lu xew ci kër gi moo koy tudd bu dee tudd bu dee lu mën a xew mooy ñëw toog taxaw ba sama baay bi mu wàccee liggéey moom mii moo ko miraas imaam jërëjëf a jaaraamam velti mën a feewi si sawante muy ànd ak imaam deer ñoom ñaar ñii boo ñëwee ci jumaay géejawaay ji su kiy jiitewul rek kii mooy jiite ñuy ay jàmbaari lislaam lool at mu ne nii lañuy ñuy man imaam jërëjëf may siyaar bu baax taalibi sëñ Abdou Hakim bii toog muy ajaratu soxna Seyna bu Caam mu Cheikh Abdul Hakim mu sëriñ Basiiru kii sama sëriñ mooma booleeg moom muy sëriñ Basiiru mu sëñ Fallu soxna Seyna bu Caam sëriñ Basiiru mu sëñ Fallu moo ko gërëm moo ko sant boole maag moom moo waral bi ma jëlee soxna ma jël cër bi jox ko ko muy soxna ndey kamee moom laa jox cër bi waaye jur sëñ baara soxna maam awaloo moom laa jox coro caam mee yaa ngi may dégg maam jaara toog maa ko jox sama cëru bopp man xanaa loolu for na ñii ñett ñii samay xarit lañu yàllaa ko dogal ñett ñii samay xarit lañu may ñaan yàlla na yàlla dimbali ma ba ma yeggale sama yéene ci ñoom ma ñëw nag ci ñetti ñu yónnee ci man ñu doog a yeggalewaat ndax délégation yaa ngi ñëw muy ajoot soxna gàmmu li tax ma jiital ko mooy sëriñ Touba ndax Masalikul Jinaan sëñ Touba bu ñëwoon muy Cheikh Mahamadul Muntaxa war a wàcc ndakaaru Masalik la jëm ndax ki ko fi nekkal ci ndakaaru muy alaaji Mbàkke yu fay murid saadix bi jàmbaari sëñ Touba jàmbaari Cheikh Mahamadul Muntaxa moo tànn kii muy ajaa Gàmmu Jóob ma xam passéefam ak jàmbaaram ajaa gàmmu maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di ñaan ci barkeb sëriñ tubaa yal na la yàlla fay bis bi ni nga ko taxawoo gis naa ko te rëy na ci man lool bég naa lool ajaa gàmmu ma ñëw ci ajar soxna Daba mu sëñ Cheikh Oumy mu sëñ Fallou ñun dama leen di leeral lu doy waar ñun beneen xale ci kër kii lañ daan añe fa lañ daan reere fa lañ daan ndékkee mag ku ñuy wax sëriñ Moodu Ba Bada ak As sëñ Moodu Ba tuddee naa ko doom doomi maam jaara yàlla wet weddi doom ji nelaw Moodu Ba moo ngi ca Espagne tey muy sama xaritu benn bakkan soxna Daba mii moo doon sunu ndeyu daara bi ñuy ne ci kër sëñ Cheikh Oumy mu sëñ Fallou ba tey jii mu mate ko sëkk li mu doon di jàmbaar lool moom rekk moo daan tëbb bool di ko yóbbu kër sëñ Cheikh ummi booba melul nii sëñ Cheikh booba taalibe yi motaguñu fukk mooy tëbb añ mooy tëbb reer mooy yóbbu ndékki su bool bi ñëwul duñu añ déglu leen baax li ma bool bi ñëwul duñu añ te booba ndakaaru démb la sëñ tàkko mu sëñ falloo fa lu leer lay wax sëñ tayir mbàkke mu sëñ falloo fa sëriñ Modou Mbakke moo ngi ñëw léegi mën naa ko wax ñu koy wax sëñ Modou Fat Ndiaye muy sëñ Modou Abdoul Wuddoot sëriñ Fallou Daam Atta Adja Daba rek daan tëbb booli bi indi ko ci daara ji ñu ko tuddee ko daara ji kon man fàttewuma loola waral ma def jëf jii ci yow yal na la yàlla fay ci barkeb sëñ Fallou te yàggal la fi lool ba suñu yéene ci yow mu yàgg ma ñëw ci sama xarit ma dem le ministre Mariama man wax naa leen ko Mariama Sarr sama xarit la dama leen ko wax man lu ma mës a def def naa ko Mariama bi mu nekkee ministre ñu wàcce ko man maa dem booba building as national building bi fa la ñuy defee passation de service barki rasulillahi ma ñëw diw fa ay saafara xam nga daal doy waat ma ne ko di nga dellusiwaat ci ministère bi kenn du la dàq ma génn di jubilé ci building ci buntu palais bi naan ministre président Macky Sall li nga def du yoon waroo wàcc Mariama saar ñu dawal tuuti Mariama ñu jëlaat ko barki Serigne Fadilou ma ne ko Mariama dafa am jom am la am fayda Mariama bi ñu ko bi mu ko jëlee ministère bi daa dem liggéey ci baasam ba nekk madame la maire ne ko bàyyi jël naa ministre waaye ci am naa maire ba nekkaat ministre moom rek ci jigéen moo dégg madame le maire madame le ministre muy sama xarit chaque jour bu ma wootee lii moo ciy njëkk moo ciy mujj maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm délégation bii ñëw délégation alaaji Mbàkke Fay la ñoom Baye sàmba jaw yéen yéen a may may ñee laay ñaan ñu may ma danañ ma ko may ñëw leen am na ñoom bu ma leen ko ñaanee ñoom moom bis bi dañ leen ko may alaaji sàmba demal demal waaw tey kay moom suñu bis la jërëjëf ñoo ngi leen di siyaar di leen jox seen wàcc jërëjëf bu ko defee ñu dalal leen délégation alaaji Mbàkke yu fay alaaji yi nag moom sama baay la waaye sama xarit la ñu dalal leen ñu toog alaaji Mbàkke Fay moo yebal alaaji Sàmba Jaw Cheikh Balla Sàmb ak Jiili Abdul Xaadir nañ leen may ñu toog Jiili Abdul Xaadir jërëjëf Cheikh Sàmb Balla Sàmb jërëjëf alaaji Sàmba Jaw jërëjëf alaaji mbàkki yu fay lu yéeme laa leen ciy wax seereel ko ajaa gàmmu dama ñëw këram ngénte ñu tudd ba noppi mu ne ma Seydou fekk ma ci kaw étage bi booba gardien yépp a ngi ne bu kenn yéeg mu ne Seydou ci mbooloo mi yow laa wax képp fekk ma ci kaw ma yéeg ci kaw fekk ko fa mu ne ma may naa la biye màkka nga ziyaare ji yonent bi ma ne ko ndax biye bi man may nga ma ko mu ne waaw ma ne ko mën naa koo may ku ma neex mu ne mën naa nga kaa may ku la neex ma jël biye boobu may ko sama taawu yaay bee booba sëñ tar jenn may na ma biye màkka ma jox ko sama taaw sama yaay mooy gis nga def lu baax lu doy waar la ndegete sëñ Abdou Samad Mbàkke doomi mooy bu at moom itam daf ma ciy may biye màkka mu béy ma biye màkka maak sama taawu yaay ñu daje màkka kon baax rek am solo kon su alaaji Mbàkke yi fay ñëwee ñépp xam ko ay doomam yépp la dajale ba ñu ñëw mu leen Seydou mii dama bëgg ngeen xam ne sama doom la seen rakka ñenn ñi seen maga loolu teraanga mënu koo gën a rëy démb dafa ma woolu ci Masaalikul naan ma ñëw mu déyanteeg man ay kàddu ne ma demal toog lépp dana baax te su ma ko mosaan wax rek noonu lay deme day jël téléphone rek ku ne ma woola wax ak yow nga woo ma wax ak man jërëjëf ne ko maa ngi koy sant bu baax Alaaji Mbàkke yu fay kon Baye Modou bisimilah mbub ñu gàttal rek bu ko defee dama bëgg ngeen jéggal ma nag ndax dama bëgg jàngum xasaayit man dama bëgg xasaayit te dama bëgg sëñ xaadim géey jàng góor a jum jàng suñu noppee fàllu sekk jàng balaa fàlloo jàng ñu reer reer yaa ngi fi lépp doy na waaye ay Seydou yaa jël kàddu léegi jàkkaarloog soxna Seynabu mu baax mi toog nga xam ni moom mooy Baye Fallou Cheikh Abdoul Hakim Cheikh Abdoul Hakim moom Cheikh Modou Bachir moom Khadim Rasoul Alaaji Seydou wax léegi cër bi nga xam ni jël na ko jox ko soxna Seyna bu mu baax mi waaye cër boobu nag yemul nag ci Alaaji Seydou déedéet waaye Cheikh Abdoul Karim moom Serigne Basiiru moom Serigne Fallilu daa jër jër jox ko soxna sëñ bu baax mi toog te kii nag baayam moo may may Sénégal Serigne Fall ñu ni ko Mbakke noo ko doonee mu ni drapeau bi ñaata couleur la ñu ni ko ñett vert jaune rouge sëñ Fall ni weer ñu ko des na étoile de sëñ Fall ni étoile bi ñaata koñ la ñu ni ko juróom mu ni maa tabax jumaa ji def juróomi soral jël ba ca gën a gudd tuddee Cheikh Ibrahima Fall maay Sénégal Serigne Fallou borom Ndindi Serigne Fallou borom Xayra Serigne Fallou borom Sam Yabal Baye Cheikh Modou Boussa Diagne Serigne Fallou sab taalibe soxna Seynabu moo yónnee ci Alaaji Seydou Seydou soxna Seynabu boo ngi lay sant mu ngi lay gërëm lii mu la jox xeeb na ko lool ndax sa digganteeg moom xam nga ko li ma wax lépp ngir ma wax ko xaju fi ndax taabu xat kon soxna Seynabou moo ngi nuyu bu baax njabootu Serigne Bassirou gu jigéen gi waaye nuyu Cheikh Abdoulaye Karim mu baax mii moom Cheikh Mouhamadoul Bachir kaddu rek laa ne woon laa ko yëkkati ci turu jàmbaar ji toog bàyyi fàllu Cheikh Abdoul Hakim moom Cheikh Mouhamadoul Bachir ci Seydou mu tontu ko ñu njëkkanteeg waxtu wi te xam ni Serigne bi nag mi ngi ci jotaay bi ñu teewlu toog nun ñëpp ñu déglu sëriñ bi. jërëjëf léegi jërëjëf sëñ Modou ñu teewlu rekk tuuti ndax jëmm jii muy kilifa jotaay ci alaaji sëriñ mi Mbàkke doomi sëriñ Fàllu sëñ Cheikh jërëjëf jëf ji rëy na lool ci man ndax alaaji Samba Jaw moo lay nuyu ak Cheikh Balla Samb ak sëriñ Jiili Abdul Xaadir ñu bàyyi ko ci alaaji Mbàkke yu fay jëf maa ngi lay sant bu baax Mbàkke bis bi bi ma ko wootee àllarba ngay fi yebale nga jële benn nag tuuba nga indil ma ko wax sa njaboot gi yëpp ci ndakaaru nañu ñëw ànd ak man pij bis bi kon loolu doyoon na sëkk ci teraanga maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm sëñ Cheikh waaye di ziar ak di sëñ Modou Mbakke mii toog léegi maa ngi lay tudd te ñëwagoo sëñ Modou mii day nit ku baax di nit ku bëgg baax sëñ Modou Mbakke mii di xalifa sëñ Abdul Wudoot nit ku baax la te bëgg baax kii lu ne lay séq ak man ci wàllu baatin ak zahir kii nit ku baax la sëñ Modou jërëjëf Mbacke maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm yal na yàlla guddal sa fan Mbacke ndax léegi bi sëñ bi ñëwee rek xoolal doomam yu baax yi niy def seen xarit alaaj Umi Mbacke Fadilou baax te yaa ngi Sëriñ Moustapha Cissé dafa bokkoon ci samay invité d'honneur barki démb l la fi indi duy ko ba mu fees ci banaana pomme orange boisson ndox ne ma bis bi lépp man la Moustapha Cissé mii le PDG Khelcom automobile jërëjëf sëñ Cheikh dafa am soxna su baax su dugg di soxna maam Faati Mbàkke mii doomi sëñ Dam Atta soxna ummi mu sëñ Dam Atta mi ñu dénkoon sama xarit bu yàlla baaxal sa doom ju baax ja sëriñ xaadim mbàkke mu sëriñ moodu bu sa jeng barke sëriñ tubaa mbàkke soxna umi sa borom kër li tax ma koy rendre omage moo ma njëkk a jox million takk million sa borom kër ma ko njëkk a jox ci àdduna ma ñëw fekk ko ci hôtel Radisson mu ne ma nañ dem ndékki ba noppi ma ñëw ci ndékkikaay bi ma ne ko sëñ bi fii lu ñu fay fay mu ne ma fukki junni ndékki kenn ku ne ma ne ko man ndékkiwu ma man ndékki fukki junni duma ko fay ndax damaa bàyyi sama waa mu ne ma ndékkil ba noppi rek ma ndékki mu ndékki ñu pare ñu dem néegam moo ngi jug xaalis bi ca lal bi ni ma jëlal loo bëgg ma ne ko déedéet may ma loo bëgg rek mu yëkkati takk million ne ma am gis nga lii ma sol bu musaan ñawlu masaay couture daf may ñawlul jox ma ko mbasin masaay couture bi ma mujjee sol bu bees taq mbasin bu verte la moom ma ko jox ba bu muy wujj boroomam loolu tax bi mu wàccee liggéey sama xel di jug ci moom moo tax bis bii ma ne naa ko ci rendre hommage sama sëriñ la woon sama xarit la sa borom kër yàlla na yàlla dolli ci moom ngërëmal yàlla ak ay leer ci barkeb sëñ Tuubaa leer na ma ne moo ngi àjjana ndax ku la bëggoon la ku la fonkoon la ku la jàppoon la waaye ngay nit ku baax te gore yow it jërëjëf soxna Oumy Mbacke jërëjëf maa ngi ziar bu baax sëñ Cheikh soxna Roumane ture mii day ndeyu daara ñu dénk sëriñ Touba seen jëwriñ sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallu bis bu yàlla sàkk bu ñu nekkul ci yenn programme yi këram lañuy yendu muy dëne la rek lu ñu soxla laaj ko mu togg di jox bu ngoonee mu teg café yeeg bagage yëpp te du tàyyi kon ñoo ngi lay ziar bu baax soxna Roumane di la sant di la gërëm sëñ waxoon naa ko léegi dañuy kenn ci njabootu alaaji Basiru Mbàkke Falilu muy soxna Mbeen Buso mi ak soxna ak délégation bi ñu àndal yépp te yaa fi sëñ Basiru sëñ Fallu may ziyaar bu baax jëmm joo xam ne itamit sëñ Cheikh damay rendre hommage baayam muy sëriñ Modu Maxtaar doomam teew nii muy sëriñ Sidi Mbakke mu sëriñ Modu Maxtaar sëñ Modu Maxtaar tànneef la woon ci yoonu murit waaye roy waay la woon ci yoonu murit daa mayoon murit yi fit ak gëm ak yaakaar sëñ tubaa xaadimu rasuul sa bàyyi barke sëriñ tubaa sëñ Moodu Maxtaar murit yi bu ñu mosaan bëgg sëñ Moodu Maxtaar sa bàyyi la ñuy déglu Cheikh Ahmadou Bamba la daan wax nit ñi di ko yëg seeni xol sa baay bëgg lool sëriñ Basiiru mu sëñ Fallu daan ko fekk Touba Mérina ne ndax xam ngeen kii dëgg-dëgg kii de wàllu yi la cëram yëpp cëri wàllu yi la sa bàyyi moo ko daan wax sëñ Basiiru mu sëñ Fallu may xool image yi ba gën a bëggaat sa bàyyi moo tax bi mu wàccee liggéey ma ne naa rendre hommage sa bàyyi fekk nag ñu am leen ci kullere sa bàyyi ci laa xam ne sëñ bés mu sëñ Fallu dana nax ñu baree bari sa baay bi mu ñëwee Touba Mérina sëñ Bas moo ne jox leen ma xalima ak big maa ko bind moo bindal boppam li muy wax lépp mu bindal ko boobu sëñ Modou Maxtaar ñoom dañ daan bindante ku ne di bind kii bind barke sëriñ Touba mu yéeme lool kon soo fi teewee maa ngi lay jox sa wàccaay di ko seeral sëñ Cheikh mi mu sëñ Fallu mi noonu lay ziyaare Cheikh Bakiri Diouf di sëtu Buur Siin mëndoo Ndofeen Cheikh Abdou Ndiaye Kourous jërëjëf yow it da bokk ci man ma bokk ci yow yaag Cheikh Bakri mii moo tax bis bi ma booleel ci ñi ma ko tuddee kee toog wax naa ko léegi muy sëñ Mortala ak Njaga sëñ Mortala mii bis bi ma njëkkee wàcc Milan muy Italie xaw ma fu ma jëm mu jël si ma ci aéroport bi yóbbu ma këram maam fa ñetti fan mu ne ma waxal loo bëgg ci voyage bi rek ma jox la ko nga ñibbi moom mii barke Serigne Touba ñetti fan laa am mi wax ko li ma bëgg yëpp ñu ànd ci marché bi mu jëndal ma ko ma tegle samay valise jubali Espagne am fa cinq jours wàññi ko ñëwaat Paris te kii tax taala mii nit ku baax la jërëjëf sëñ Mor Talla man lu ma waay defal rek boo bañee ma wax ko bul def man def wax rek la ok kon dama bëgg ñu dugg tuuti ak lu baree bari ci xaside yi bu ñu noppee ñu ñëwaat ci wax ji ndax dafa am koo xam ne moom rek lay tontu wax naa ko du ci waxaat du ñu ñaar kenn lañu soxna Seyda bu Caam mu sëñ Abdou Akim mi du doon waxal léegi man damaa jël cër jox ko sama soxna seedi ndey ka moom laa may première njëkke may soxna sëñ Cheikh Oumy soxna aji fay deuxième njëkke la tax ma def ko moom xam na man xam naa sëñ Basiiru mu sëñ Fallu la ba mu koy gërëm man la ak moom ñoo toog sëñ bi def lu ma yéem ci àdduna bagage bi mu ko doon jox daf ma ne bu ko laal ak sa loxo fi ma ko teg léewu ko nga dem ba ca moom nga jox ko ko noonu laa ko defee mu am cër lool ci sëñ bés bu sëñ Fallu kon maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm yëkkati leen seen loxo taxaw ñu màggal sëñ Tuubaa yëkkati leen seen loxo taxaw ñu màggal sëñ Tuubaa moo def yàlla bi def ناسي جولتي والكافني كل سائل يجيب الخلل لكن يمينا قديما أمر بي الله وفيدا وفينيك يومك أنت رئيم الذي أرجو بها يوم القيامة يوم الخيامة بشرى يومك أنت رحيم الذي أرجو برحمته يوم الخيامة بشرى خير العمل اللهم سبا يوم يصفون صلى الله رسول الله سيدنا اللهم سبا يوم يوم رجوت أدناب ما قد ساقوا أرم إلا سحير مدي خير لكم على أميتك اليوم الملل يا الله يا ربي سلي حسبي والكتب إلا كان المصلى محمد ilaa yaay faj sunu aajo laaru borom daaru nga yaa dimbali xale yi taxaw xale yi tey am nga ngant waaye ma nga ngant cheikh dafa yebal fort délégation délégation bii ñëw le premier ministre Amadou Ba moo leen yebal Cheikh Mbacke Dia moo ngi ñëw di présenté leen. Serigne Makhtar Silla Cheikhul Asrar moo ngi nii toog ñëw ànd ak Serigne Jili Ñang kennal Serigne Touba moom Serigne Khadim Ñang moom Serigne Afiye Ñang waaye ki yegg si léegi. nañu dalal dañu dalal soxna Astou Touré moomu dama ko fonk lool ah gaynde baaraa ñëw ak parrain bi Serigne Fallou Galas Lo buur daal yi gaynde kokki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 Sénégal gaaw leen gaaw ngeen woote si 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ndax ah, lii am lépp tawfeex ci sëriñ bi.